aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi suñu jàkkaarloo ak jataay bii ci jamono jii xel yëpp danañ maasa dem ci bisub jàmbaar joo xamante ne bii sëriñ tubaa xaadimu rasul la doon liggéeyal kookee di sëriñ Souhaïbou Mbacké moom sëriñ tubaa xaadimu rasul ndigal bàyyi koo waat ci sëriñ tubaa cheikh sidil muxtaar xalif général kullu murit wàcc ci kër Serigne Chouaïbou jaar ci kër jaar ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi tey jii ñu ñaan sun borom yàggal ko fi lool te doole ak wér mu jox ndigal rakkam di Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu feggoo ak rakkam jii di Cheikh Mouhamadou baaram mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu organisation màggal gi ak communication bi lépp moom lañ ci doyloo teg ko ci loxoom mu ànd ko nag ak. mbooleem seex yi nga xam ne ñoo jaayante woon ak sëriñ Souhaïbou ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy turandoo sëriñ Souhaïbou yi ak soppey sëriñ Souhaïbou yi ak mbooleem taalibey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yépp bisub sëriñ bu di juróomi fan ci weeru koor moom mi nga xam ne sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñaanoon na boromam subhaanahu wa taala ne damay liggéeyal yàlla ci alquranul karim waaye alquran nag mooy sama àndandoo mooy sama docteur te mooy sama xarit doomam jii di sëriñ Souhaïbou wuutu ko ca loola feñ jamono ci wéru koor genn aduna ci wéru koor liggéeyam bépp di alquran loolu moo tax ñu fas yéene taatan ay kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Sohaybu jëm ci bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy dëgmal su noppee ñu jox kàddu gi doomam di jëwriñam di sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke mu wax ci turu organisation màggal gi su noppee danañ jox sëriñ Sohaybu Jóob mu wax ci turu turandoo yi ak fédération soppe Serigne Souhaïbou yi nga xam lepp lu jëm ci walu njàngum alxuraan ak la ci aju lepp ci seen loxo lañ ko tek te Serigne abou Daaru salam nek ci bir su noppé danañ jox kaddu gi Serigne May Amar mi wax ci turu cheikh yi su noppé ñu jox Serigne Daam mi wax ci turu magi talib yi su noppé jox Serigne Abdou mi wax ci turu dongay terbi kon bis bi nga xamante mom lañuy la ñuy dëgmal mooy bisub alquran moy bisub dara moy bisub l'islam moy bisub képp ko xamante ni bëgg nga lu baax di wara am juroomi fan ci wéru koor nañu ko daan defee ndax soo Chouaïbou bu lépp am suñu borom da koo sellal moo tax lépp ci bëccëg bi lay yem dañuy yendoo jàng alquran yendoo jàng ay xasida yendoo def ay salaatu ala nabi su dog jotee ñu defal bernde su ko defee sëriñ bi ñaanal mboole mépp yeewi leen ginnaaw bu ñu defee waxtaan woo ba noppi kon ñu yëkkati kàddu gi jox ko Cheikh Mahamadou Lamine Baara bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi sant Serigne Touba bu baax di fas yéene jottali ay kàddu yu ndigal yu bàyyeekoo ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Souhaïbou euh, jaa ci rakkam ju tedd ji di Cheikh Abdou Lahad Mbacke Souhaïbou ak mboolem njabootu Serigne Souhaïbou gépp góor ak jigéen euh, Serigne bi nag ginnaaw bi mu jotaatee ndigal ci Cheikh Seydil Mokhtar mi fi nekkal Serigne Touba yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem njabootu Serigne tubaa gépp mi ngi wax ne mi ngi fàttaliwaat bis bi nga xam ne ñu ngi koy defal mi ngi koy defal waajuram wu tedd ba te ànd ko rakkam yëpp di Cheikh Souhaïbou Mbacké muy nañ ko daan defee di juróomi fan ci weeru koor bi fas ko ànd ak mbokk yëpp ak taalib yëpp nee na mi ngi koy fàttali mbokki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba ak eh, mboolem askanu Mbacké ak musoo bi wépp ak mboolem taalibe yëpp di leen ko fàttali di ko fàttali mbokki diineem mi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi te bokk ak ñoom lislaam bi ak këru diine yi ci biir Sénégal yépp di ko fàttali it président de la république di ko tàmbalee ci ñi ko nekkal fii muy sous préfet bu Ndaam ak préfet bu Mbacké gouverneur de la région de Diourbel euh, ba ci ministre de l'intérieur premier ministre ba ci moom euh, bis bi nag bisu Cheikh Souhaïbou bu mooy bisu alxuraan ndax euh, defe naa ne ku bëgg a liggéeyal Cheikh Souhaïbou euh, ci alxuraan ngay tàmbalee ci nga yem ndax moo doonoon ak dundam comme ni nga ko waxee léegi kon ñu ngi ciy soññ mbokki taalib yëpp euh, taalib yi nekk ci biir réew mi taalib yi yaakaar Serigne Touba yëpp ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku nekk taxawaay ba nga ci daan am Serigne bi mu ngi la koy fàttali ñi nga xam ne dinañ koy amal ci biti réew muy taalib yi aju ci kër gi Serigne bi mu ngi leen di fàttali di leen soññiwaat ci taxawaay boobu ñu daan taxaw ci bis bi. ñu gën gor gor lu baax baax te te jital alquran euh, ñi nga xamne it yalla dina dogal mënu ñoo it ñi ngi leen di ñaan donte benn kamil la ñu def ko jox ko àddee Cheikh Souhaïbou bu Mbacké ndax japp na ne loolu moy li ëpp solo ci moom euh, kon nak li nga xamne mo dess des jëm ci walu programme bis bi ak yi ci aju ak jangum alquran meeg yoy yëpp sëñ Abo mi moy coordinateur bi ni nga xamne non la ko àndee won ak ki ñu aw liggéey bi ci moom muy euh, Cheikh Abdou Samad euh, noonu rek lañ ko àndee ak moom moom it mu ànd ak ay magam ak i rakam di liggéey liggéey bu rafet ci bis bi kon li ci aju ci wàllu programme beeg yooyu sëriñ Abo dina ko leeral waaye sëriñ bi daal mi ngi woo ñëpp di ci jiital mbokki boppam yi ak mbokki taalibe yi ak taalibe yi kër gi ak seex yi nga xam ne ñooy seex sëriñ Tuubaa yi ak seex yi aju ci kër gi yëpp di leen ci woo di ñaan yalla nañ ci egg ak assalamu alaykum wa rahmatullahi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi yëkëti suñu kaddu ci ndigulul sunu kilifi yi tedd yi nga xam ñoo tew ci jotaay bi di cheikh mahamoud lamine barak ak abdullah abdoulahan mi nga xamne moy moy kilifi gi di di soñu ak fatali ni serigne bo waxe bis bi nga xamne moy bisub sunu serigne ba di cheikh son bu xam ngeen waxtu yi baaxoo nañ saa su saa su accès ñu teew ànd ko ak sëriñ bi yé yégal ko mbooleem mbokk yi ak ak taalibe yi yégal ko yi mbooleem ñi nga xam ne ñooy aju ci kër gi kon kon ñi ñi ñi ngi ci soññi ñëpp den ko fàttale rawatina mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn rawatina mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn teg teg teg teg liggéeyu màgg ci seen loxo Eh, te ñu ànd ko ak Cheikh Mamadou bar mi nga xam ne muy muy muy njiit li ñoom ñëpp ngi leen soñi euh ba magal jégué seew nañ ko baxo défé waccay wi ñi ngi dañuy def ay ay ndaj ak ay waxtaan eh, loolu ñi ngi ñi ngi ñu ngi ci soññi taal bi yépp képp ko xamna ne dénk lañu ab liggéey ci magal gi nga yok ci taxawaay yok ci passif ba ni ko sëriñ bëggé mm, inshallah buñ ci aggé ñu défé ko noonu. soññee nag ñi sëñ bi ni ko sëñ bi junj léegi rek ñu ngi ciy beral ab soññe daara yi alxuraan yi nga xam ne li ëpp solo ci bés bi ñoom ñoo ko féetewoo sëñ bi junj na ko léegi ñu ngi leen ko yëgal di yëgal yëgal boobu it ñu ngi koy teg ci turu raabita bi nga xam ne moom moo lëkkale mboolem daara yi alxuraan yi nekk yi nekk ci dëkk bi ci njiital sëriñ Basiru moom moom moom sëriñ Fadilu ak sëriñ Basiru moom sëriñ Habibu waaye di ko teg ci loxo it sëriñ Xaali Jaxate mi nga xam ne mooy mooy mooy coordonnateur fii ci Touba nañ ko baaxoo defe rek sëñ bi mi ngi mi ngi koy sàkkuwaat ñu sàkkuwaat ci ñoom ñu yaatal ko ci mboolem daari alxuraan yi lu ci ay man rek ci alxuraan nga def ko te yéeni te yéeni yool bi sëriñ Sohaybu bu ñu àgg ci bis ba it nañ daara ju ko mën nga ñëw ci penc mi eh, ànd ànd ànd ak ànd eh, fi nekk ñeenn njàng ba ba ngoon jot kon sëriñ baa ngi lañ soñ bu baax a baax di ko yëgal mboolem daari kaamil yi nga xam ne aju nañ ci yoonu murit moo xam yi nekk fii ci Tuubaa la yi nekk Njaaréem Daaru Muxti Daaru Salaam mboolem daa dëkk yi nga xam ne sëriñ Tuubaa sanc na ko te niñ ko xamee fu ci ne daara kamil nekk fa eh, di wéyal ndigal ndigal ndigalu Sëriñ Tuubaa loolu daara kamil yooy it nañ ko baaxoo def rek daanañ bind ay lettre di leen ko yónnee loolu it danañ ko def waaye teewut eh, ku ci dégg eh, woote bi nga xam ne ab soññi la fàttali la lu luñ ci man rek mm, sëriñ baa ngi koy sàkkuwaat sàkkuwaat ñoom ci alxuraan ji di di ko yëgal mboolem kuréelu xas xasida yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci xasida di di di cee ber ab yëgle rek day defal ko masoon bi nga xam ne bañ commencé bis ba léegi mosuñu ko noppee ànd ànd ak sëriñ bi fii la fii lay ñëw yandu fi eh, yenn dafa jàng xasaayit ba ba ngoon jot kon yëgle boobu su ñu ngi koy teg seen loxo waaye di ko yëgal mboolem kuréel xasaayit yi nga xam ne ñu ngi ci biir ak yi nekk bi bitim réew yëpp lu ci lu ñu ci man rek ca njàng ci njàngum yi ñu def ko te defal ko sëriñ sëriñ bi di ko yëgal nag mboolem daayira yi nga xam ne ñu aju kër gi moo xam yi ne yi fii ci biir réew mi ak bitim réew eh, suñ baa ngi leen ci soññi di leen ko yëgal te eh, wàccaay yi ñu baaxoo defee kenn ku ci ne nga bay nga bay ci xel euh, ba kenn ku la la nga ci war taxaw nga nga taxaw ko jox di ko di di ko yëgal it nag mboolem taalib yëpp nag euh, ni ko sëñ bax rek mboolem mboolem taalib taalib bu yàgg euh, ci wa ñi ñi nga ñi nga ci soñu di ko yëgal di ko yëgal mboolem kuréel yi nga xamne da nañ japp ci liggéeyu magal gi mm, mo xam daayira yi nga xamne dañu feytu wala ak ketal la ak yi ak yi daayira yi mel ñepp tay tay daayira yu mag yo xam dañu dañu aji ci yoon mourid madame Fawzayni ya daayira mel ñep ñu ngi leen ko yëgal eh, di leen soñ ci taxawaye ci baxo dafé di leen sant ci taxawaye ñi ñi daan taxaw ci ci ci màggal wess yep yëpp ah, comme ni ko comme ni nga ko waxee ni ko sëriñ bi waxee màgg xam ngeen programme bu moom dal soppiku ci ni ñu ko baaxoo def rek lepp ci bëccëg bi la yam inshallah buñu xeyé eh, dañ dañ dañ danañ amal dañ fa amal jangul quran mi mi nga xamne commencé won nañ ko eh, ba ba ba disbar jot ginaaw buñu ñu disbar dana am benn conférence bu fay am boo xam ne euh, conférence boobu dana dana dana wéy ba takkusaan incha allah bu ñu sëlmalee takkusaan nag ndaje mi ñu fi baaxoo def te sëriñ bi di ko teewee ak ak mboolem mbokk yi mbokkal sëriñ bi ak taalibe yi euh, muy muy cérémonie bi moom it danañ ko def incha allah bu ñu së bu ñu sëlmalee commencé euh, dana dana dana dana wéy ba timis jot incha allah bu ñu sëlmalee timis nag ñu àggee ci timis danañ berndeel gan ji incha allah buñ ci buñ ci noppee nag foofu la sëñ bi di yeewee taalibe yëpp. Euh, kon loolu moom dara soppiku ñëpp xam nañ ko euh, loolu loolu lépp loolu lépp nag mi ngi am ci taxawaayu mu euh, mu njàngma alxuraan mi ak waxtaan diine ñi fi am yëpp ma mi ngi am ci taxawaayu daayira turandoo yi ak fédération soppe Serigne Souhaïbou bi ni ko ni nga ko waxee léegi si Serigne Souhaïbou Serigne Souhaïbou Diop war a wax seen kàddu te Serigne Abou Daoud Salam yi teew teew fi kon kon loolu mooy programme bi ñu ñu ngi koy fàttali ne amul genn soppeeku la ci yokk rek mooy màggal gi xam ngeen ne sëriñ bi sëriñ bi daaw joxo joxoon na ndigal waa Italie ñu commencé ko naam joxe na ko sax ci dëkk yëpp waaye itali ñoo ko commencé euh, daaw ndigal loolu sëñ mi ngi koy fetluwaat di ko di ko yeesalaat euh, sëñ Cheikh Mamadou Bara mi nga xam ne moo yor liggéeyu màggal gi moom la moom la jox ndigal saa su tax taxaw màggal gi fii ba noppi mu dem Italie taxaw màggal googu euh, kon mboolem taalib sëñ soñ yi boo xam ne yaa ngi itali wala taalib sëñ Tuubaa bu fa nekk sëñ bi ngi leen soññ di leen di leen di leen di leen jox ndigal it bu ñu àggee ci bis ba képp koo mën nga dem ànd kook taalib yi fañ koy defee dëkk bu ñu tànn rek ànd na ànd ànd na ca waaye jox na ndigal lépp ñu ne ñu dem ànd ko ñoom euh, incha allah suñu suñu suñu suñu baara bu ñu màggal ba noppi dana ñëw Italie euh, teew màggal ga loolu suñu baa ngi mu ngi koy fàttali bu fàttali bu baax a baax xam naa liñ ci euh, yokk rek mooy xam ngeen ne ren ji bu dee ci atum hijriye mooy tombeek téeméeri at yoo xam ne suñu son yu Mbàkke am na ko ginnaaw bi mu feeñee day mel ne kon mooy mooy tombeek li ñuy wax centenaire bi bu dee ci atum hijriya bi ci atu wolof yi ni ñu ko ni ñu ko gën a xamee euh, moo tax xëy na am na liggéey boo xam ne euh, Cheikh Mamadou Bara mi ngi ko ci def buñu màggale ba noppi am na waxtaan ay ay conférence yu yoo xam ne war nañu ko amal ca Ndakaaru waaye loolu ci ginnaaw màgg lay doon euh, loolu it sëriñ baa ngi wax ne nañu ko bàyyi xel buñ ci àggee xam naa ci programme bi ak na muy dox lépp danañ ko def ci ay ay ay ay yégle ak ci communique communiqué ba ñëpp xam ko waaye ñu bàyyi xel rek ne dana am ci Ndakaaru incha allah rabbi lépp nag ci njiital sëñ baare mi nga xam ne moom la sëñ bi teg liggéey bi ci loxoom kon ci gàttal loolu la ñu amoon ci kàddu yoo xam ne danañ ko leeral euh, di sant bu baax su suñu kilifa yi di ñaan suñu boom yàggal leen fi euh, te te wëral leen di ñaan mm, suñu boom dimbali ñu ba liggéey bi nga xam ne mm, teg nañ ko ci suñu loxo ñu ànd ko ak bi yëpp liggéey ko ba niñ ko bëggee ñu amee ko noonu ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilah waxda wasalaatu wasalaam ala man nabi baxda mu fas yéene jëfandikoo ndigal barke sant bu baax sëriñ bi cant goo xam ni suñ làmmiñ lottu na ci suñ xol nekk fa dayul can tàmbalee suñu dal cant yam fal suñu can tàmbalee ci sëriñ bi noo ngi fàttali loo xam ne sax xam ne kenn fàttewu ko mbirum sëñ sooy bu moom ku jub weeru koor rek sa xel dem sëñ sooy bu ndax ni ñu ko waxee léegi ci lan feeñ àdduna dana ko bay gis liggéeyam bépp na di alxuraan alxuraan tam di weeru koor kon xam nga lépp moom sëñ sooy bu moom weeru la ndax liggéeyam àdduna mën nga ni jikko sooy sooy mooy jikko alxuraan na ko sibtu naa wax de woon jant bi xul xul xul xul ma ngi fàttali turandoo sëriñ son bi li nga xam ne moo doon seen liggéey ak soppee sëriñ son bi xam ne sëñ Abou Mbacke moom Darou am moo ko jiite turandoo sëriñ son bi da am loo xam sëñ bi leen ko sose woon ci màggal gi ci njëlbéen ba léegi ndax wax nañ ko ci njëlbéen di ko feddali ba léegi mu feddali loolu moo feddali ko mooy képp koo xam ne am nga taw feexaw sa wajur tuddal sëñ son bu bu màggal jigesee na nga jëf ci saw ñaq loo xam ni dañ koy jox ñi nga xam dañoo jàng alxuraan loolu nag muy bu boo xam sëñ bi ne ko waaye itam muy bu war damoo ndax sëñ lépp alxuraan la sëñ bi ni yéen ñi nga xam ne moom la tuddoon sëñ sooy bu li ma bëgg ngeen génne ko seen ñaq daa dajale fii bu àggee bu màggal gi fi ne ñu jox ko nga xam ne doon jàng ak ñoon jàng xasida loolu maa ngi ko fàttali ñëpp koo xam ne dikk na ci daara ji mottali sab teg mat mat loolu na ko mottali koo xam ne tegu ko na ko teg ngir jëm ci mu jëm ci liggéey boobu suñ suñ suñ santoon waay ñi nga xam ne si ni ñooy soppi sëriñ bi ñoom itam ak turndo yi ñu laa taxawu baas bi ak gan ñi ak ñi ñuy jàngal xoraan loolu itam sëñ bi ne mi leen ko fàttali ngeen mi leen fàttali ngeen gën a ngeen gën ko fàttali ko maa ngi ci profité woo di fàttali ñi xam ne ñoo féete suñu wàll képp koo xam ne si yaa ngi féete woon ci suñu wàllu nu di suñu jëwrin ma nga defaat bis bi bis bi amul benn bis bu ñu ñor ni moom waxu nag bis bu ñu a nekk ci réew mi ci bitim réew foofu waay nekk naka bàyyi sa xel ci ni bis baa ngi jib si mu juróom fan ci weeru koor kon nag ndigal laa ngoog nun ko fas yéene jëfe te góorgóorlu si baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mo ngi len nuy kenn ku ne ci wutrom ak santam ci di len jot may wax ci sen tour muy dongay terbiye yi ak ñi nga xamne ma len fete ak mak nu xamne ter dongay terbiye moy soldat soldat nak liñ koy doye moy guerre kon dafa melne guerre déclaré na ndax serigne bi mi ngi wotel serigne bi bis bis bi it kon li ci war lépp nun dongo yi la war fas fi yéene jiitu gan ñi dalal leen mujj leen fi